Louga TV yi ñu ngi fii ci Kaolack ba léegi ci Salika tey nag maa ngi taxaw ci box boo xam ni kilifa gi ma taxaw dina wax fi mooy fan. ak li muy def gi charal. loolu si bu baax Cissé. Mhm. di bu baax di am mbégte nag. Mhm. vraiment tey bañ jàkkaarloo ak yow. Ah. ndax yàgg nañ la bàyyi xel. Mhm. yàgg ko bëgg. waaye tey suñu moom na ko. macha allah tey yaa ngi fii Kaolack. Salika. nekk si box 54. bergerie soxna Awa Gueye. Euh, borom di Omar Sall man mii taxaw maamu bergerie bi. dëkk Ndram Escale. tey nag kan uh-huh. la soxna Awa Gueye soxna Awa Gueye mooy sama wajur bu jigéen uh-huh. yàlla dafa dogal mu nekk xaman ni uh-huh. xaw ma ko ah, waaw waaw ndax muy tout tànk la la la la la la gën a àdduna macha allah vraiment lépp lu may def rek bëgg dugg ci rendre hommage waaw parce que li may dégg si moom mm-hmm. fu ma jaar ñu ma siyaay nangam nii wax moo tax toujours rek may bëgg di ko fàttali ah, di xamal nit ñi ni kook mooy sama wajur bu jigéen macha allah mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare ajana amiin yaa euh, euh, kañ la bergerie soxna Awa Gueye taxaw bi yàggul juillet 2021. Hmm. juillet 2021, euh, un an. Hmm. donc ñu un an et demi. Ah, mu yagul nous ah, euh, da nga nekk euh, nekk ci xar kurkur. wala da nga nekk nous que nous gis dum dugg ci nga nga def. non ay hmm. comme ñu ko ni ngi di ay mais yalla dogal ma xamante nous kilifa gu nous ci élevage bi. mu un grand monsieur. vraiment bu xamanté ak mom mu encadre jàppale ma. Hmm. xamal ma ne ma kat deug deug xar yi baax nañ. Hmm. mais élevage am fu tollu toll. Hmm. te bu dox da ngay dox and ak mom da ngay fexé xol xar yi nooy dafa génné so soo na la jappalé taal rek tax donc fu la jaaree ba dug ci laadum bi. lo duggé ren nga commencé euh, euh femelle bu porté jeune lo duggé wa non su dugg ci élevage donc teng la commencé. ci mois de mu jaam benen teng mu tebbu ci abo mu jox mako ci prix bu xëwale si laa commencé ma élevage ba tey jii nii mhm. euh, foo toll lan nga yor instant bi kii nga indi mooy kan waaw kii ma indi nii donc mooy abo mhm. abo mi nekk doomu euh, mam Samb nekk doomu abo euh, abo nekk doomu Maysra côté yaayam nekk maya mhm. maya nekk doomu Seex Anta wax Seex Anta wax ado ado booy séeréel donc ñoom ñoo ko seq muy jeune mâle bi toll si onze mois onze la jógee waaw kii mu ngi jógoon Dram Escale waaw benn commune bi naan Dame Escale nekk fii ci bokk ci kaw Kaolack. fa la jiyee ko ñëw fii si Seleka bi. Seleka mhm. dama ni euh, ba nga koy jël ci ban bés nga ko jëlee. Euh, maa ngi ko jëlee si Sira Jakite. Ah, moo waaw. ndax moom mooy sama mentor. ok puis moo ci ma si élevage bi. moom moo la jox euh, tëng. xar yi fi nekk yëpp. yëpp moo ko jox yëpp moo ko jox. ok nag ñoo ma ko mën a expliqué noir bële. waaw borom couleur bu rouge bi. waaw nii. waa añal la ah, mu ngi toll si huit mois. Mhm. dugg sax ku nga añal démb. kii mooy Asu Diop Ass Diop nekk doomu Tidiane. Hmm. Tidiane nekk sëtu Bachir. ak Boy Séeréel. donc côté yaayam mu bokk ak madame Cissé bu Latir Cissé. ndax ku ne madame Cissé moo wax record man. moo fi woon 155 yi te ren rek la ko spécial doo ko dab. Euh, maamu maamu la maamu maamu maamu kii lañ teg si am maamu madame Cissé. mu jur mu jur yaayu kii nekk toll si. añal bu doy waar toll si huit mois. femelle bi nag borom collée bu jaune bi. Euh, borom collée bi doomu Aspic la. Aziz bu nekk si grand Selili mm-hmm. moo ko jur mm-hmm. Aziz bu nekk doomu Teranga mm-hmm. ak Mista donc yaayam euh, sëtu Bossir lañ teg si sëtu salum euh, Saloum mu jur yaayam mu teg ko si Aziz bi mu jur añel bi toll ci quatorze mois ñaan yi waaw ñaan yi euh, kii borom bande bu noir bi Kornegati ni sëtu Mako Sey la ndax doomu Mako Sey bu nekk si Père Latka bi mm. moo ko jur Euh, yaayam tamit nekk sëtu nekk madame ke nekk sëtu Cheikh Anta hmm. lañ boole mu jur xar bii nii macha allah waaye ki topp nii nag kii moom laa njëkk am si xar ah, donc kii nii donc mën naa ne moo fonde bergerie bi waaw def na fa ñaari porté euh, moo nekk nii nekk madame Sall waaw moom mooy tëng mooy madame Sall sama soxna laa ko tuddee ah, waaw mooy mooy mooy madame Sall donc nekk nii euh, nekk doomu njolloor ku ne njolloor wax roi Basir yaayam nekk doomu chef de l'État moo nekk nii. yow nag euh, yàggoo mais dama gis ni am nga sang yu bari ci ci bergerie bi. waaw alhamdulilah dégg naa waaw dégg ah. abo waaw. yooyu yëpp a ngi fi ah, parce que. xaaral da nga yàgg suivre gars yi da nga xam da ngaa ci war waaw grâce à Samagal TV. Ah. tax na ma xam élevage. parce que à tout moment rek damay seen émission yi. ok donc tax na ma xam lu bëri. laata sama may dugg si élevage oke ok ok ok vraiment sama galti bi dama koy saan lu bari. donc lu bari nag si laa ko xamee laata ma dugg si xar yi ah masya ah, allah macha allah kon euh, tey ba ñaata nga dugal concours benn añal bi rek. donc tey tey dugal dugal dugal naa ñett. Ah. dugal naa añal bii. Ah. dugal na concours sama mi 11 mois. dugal na concours jeune mâle. donc kii dama ko day dugg espoir. ah mu ngi 14 mois maintenant espoir may ko sax ndax am na ay maturation yu ko permettre mu mën a xeexal ay moromam. yow kamu nga affaire yi. di parce que xam nga élevage donc concours dafa am solo. très bien mooy tax nga évaluer. Mhm. xam yow foo toll. mais fekkee da ngay ñëw rek exposé dem donc doo xam yow dëgg-dëgg foo toll. te élevage nag dana élevage amélioré. mooy xar yi nii. macha allah bu ñu nee xool foo toll après nga yokk voilà noo gisee seen seen seen seen seen bi seen première édition Saleka bi. non macha allah. wax dëgg yàlla ñu bëri ne woon du am mais si ndimbalu yàlla euh, ku ñëw fi xam ne dara manqué wul fi lépp luy am ci yeneen dëkk tamit am na fii nii élevage bi am na niveau xar yi rafet nañ mhm. macha allah daal di ñaan rek. ñu yàgg fekk at yu bëri. te at bu ñu dàq morom ki boo ma numéro bi ak tegtal bi. waaw numéro bi 78 575 02 47 wala 70 871 08 49 adresse bi Ndramé Escale en face mairie de Ndramé Escale. kontaan naa ci. jërëjëf Cissé dégg naa lool. jaajëf